نون والقلم wa ma ala rasulillah maa ngi gërëm kilifa yi fi nekk di leen euh, wax du du ay kilifa toog euh, ci ay at amuñu ko ci xam-xam amuñu ko ñuy jël kàddu donc dañuy gàttal la di jégalu bu baax ci kilifa yi fi nekk yëpp euh, di wax ne euh, kàddu yi dañ koy tënk ci gërëm gërëm leen li ngeen tànn euh, Matam pour abriter fii journée bu mel nii di cérémonie bu toy toll nii lu tax ma leen di gërëm ci loolu mooy surtout li ngeen ko tuddee kilifa gu toll ni Thierno Sama Fall mu rabbi bi euh, bi nga xam ne mooy sunu sëriñ nekk fii si Matam kilifa bu day noonu wax dëgg yàlla bu ngeen ko tànnee euh, jagleel loolu daf ñuy neex moo tax ba wax dëgg yàlla lépp lu si ajowoo li nga xam ne centre culturel la euh, ñu jël ko def lu ñu waaye nag lu ci def nii lu tax sax nit ñi di ko tudd mooy lu mu nekk service waaye bu doon lu jógee suñu poos la yàlla xam na ne dañu bëgg kenn tudd ko waaw donc loolu daal vraiment ñu ngi leen si gërëm di leen di wax ne daal wax dëgg yàlla Matam da di dëkk bu mag man anecdote bi ma si nettali mooy ba ma fi ñëwee première guddi bi ma def damaa wër dëkk bi tuuti wati lamp boo jot su suuf daanaka am na ñu fa toog di jàng alxuraan muy muy lu kawe lu rëy euh, mu am ay samay mbokk yu may woo doon dégg ne Matam tàng na bëri na poussière maanaam ñu lay woo la ah foofu de mbaa neex na mais la ma leen di tontu rek mooy. dëkk bi nga xam na fi lay Thierno Sama si di yeewu dadul teggil sax ngay ngay woote kii di ko laaj ndax neex naam neexul wax dëgg yàlla loolu moom du teggil euh, di leen di gërëm yéen ñëpp di gërëm ces trois vers ci initiative bi parce que mënoon nañu jël seen alal yóbbu ko feneen waaye am nañu gis-gis ak mbaax jël seen xaalis daf ko ci alxuraan ak liy jëmale kanam alxuraan donc ñu ngi gërëm di leen sant di gërëm comité bi comité régional bi ak comité national bi nga xam ne ñëpp liggéey nañ ci mbir di leen euh, souhaiter la bienvenue ici au niveau du centre culturel di leen euh, ñaanal euh, en mu nekk yeneen bés incha allahu rabbi jërëjëf maa di gërëm di leen sant. ɓe banndiraaɓe pirten ko directeur centre culturel o ko haali ko ko neɗɗo moƴƴo mo nganndanɗaa hoore ma nde min ngari min kaalaniimo huunde nde o wii ko temedere sise o sonorisation o salle o fof mi waɗi ɗum e allah e ɓurana haydara mi sohlani hen wadde on ko jarɗo do'onade so ɗum yewti o wi ina jeeya ko taki ɓuuri weltade haw toti en ko toti en ko ko cuɓiɗen ko matam pour wadde final o ko refti ko hen ina jeeya tawi ko suufi en kadi ko ƴettuɗen ko ceerno men ceerno samata gimbirɗen mo ñalawma o wadde ko ɗum hunde mawde ɗum woni homo yetta yimɓe ɓe foof homo yetta kadi o wi kanko e hoore makko ɗo fuɗɗa nde waɗede affecté ɗo yimɓe ne mbiya mo toon no wayi ina woɗɗi ina o wii kono min yoni kam tan mbiɗa fina e wura nga nganndanɗaa hoore ma ceerno men ceerno samas ina fina ɗoon kadi ɗum yewti o wii kanko ɓuri mo hawnaade e mataw fof o yaltat jamma so yii lampaaji ɗi eɓe njooɗo eɓe njannga alqouranul karim ɗum ɗon koko teska e ndeer mataw wadde ko ɗum adresse moƴƴo ɗum directeur haali directeur wi yettii kadi sere ses trois s e, e comité national o e comité régional o fof o ñaaganimoɓe o jaarama salamu macha allah sëñ Ousmane monsieur Diallo ñu ngi lay delloo sant bu baax xam naa daañu si ñëw sax si naan nu mu gën a yàgg incha allah waaye yaa ngi fi liggéeyal nga alxuraan karim yal na alxuraan yëkkati la yaa ngi liggéeyal nitu yàlla yal na la yàlla yëkkati si daraja ku si nekk ku ne ma des naa sonn seen ginnaaw ngir yaakaar ah, borom bi tabaaraka wa taala kon liggéey bi yàlla bu mu neen yal na la yëkkati ba yóbbu la foofu foogul tamit euh, njiitlaay comité d' organisation yaatal mbir alquran dégg nañ bu baax a baax kilifa yi kontaan nañ loo xam ne danañ si ñëw sax si nawet mu gën a euh, yaatoo incha allah xam naa kàddu gi dañ koy jox monsieur Abdoulaye Ciss Ba moom itam muy wax si turu gouverneur ak DIA Abdoulaye Ciss Ba bismillah. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokk yi ñu ngi. sant ñëpp ñu fi teew di ci jiital eh, ku fi ñëwal sunu sëriñ sëriñ Mouhamad Samaka eh, jazahullahu an il islam wal muslimina xayra bu ñu joxee ku ci ñëwal sëriñ Mouhamad Samaka mu tënk ko boole waa sëriñ waa kilifa diine ñu fi teew yépp ñoo xam ni temps bi du ñu ko permettre ñu lim leen waaye gis nañu leen ngi leen sant di leen gërëm ñu ngi nuy mbokk ñoo xam ni ñu fi ñëwal c 3 di leen sant di leen gërëm eh, di leen ngeen jottali ñu sunu nuyu ak sunu sant ci kilifa société macha allah bu baax boobu mooy Serigne Seck yal na ko yàlla fa yiw ñu ngi sant tamit comité d'organisation yaatal mbindum alquran di leen gërëm di sant délégation ñi fi teew ñu jaxe jóge yeneen région ñu ngi sant tamit euh, waa ndey daara te jiitul soxna mu càmm eh, ñun nag ñu ngi fi teew ci ndigal monsieur le gouverneur de la région de Matam moo xam ni moo fi waroon teew ndax dayu cérémonie bi moo toll noonu waaye dafa fekk dafa am ay empêchement moo tax ñu yëgal ñu ñëw fi teewal eh, mu ngi kontaan lool lool lool ci cérémonie bi mu ngi koy wàcc ci wàccuwaayam di ci kontaan lool di leen xamal ni éducation ak formation responsabilité de l'état du Sénégal état du Sénégal nag fii ci région de Matam moo ko toogal fii moo représenté le président de la République kon mu ngi leen di sant lool di sant Serigne Seck boo xam ni ay effort yu ama am solo boo xam ni mu ngi koy def gaa yi wax nañu ko xam naa temps bi du yaatu ndax ñu jaaraat ci parce que xam nañu ni xam-xam bu ñaari mbir ñoo ko ñoo ko yor lecture ak écriture il faut ñu am dafa am benn travail de complémentarité bu am ci ñaari boo ci jëlee benn bi nga bàyyi beneen bi du mun a sotti ñu nag constat bu ñu am waxuñu daara yi du ñu bind daara yi ñu ngi waaye lu gën a bare léegi ci internat yi boo xam ni dañuy xale bi dafay gaaw mokkal alquran bi toujours dañoo ciblé mémorisation bi dañoo gën a ciblé mokkal bi loolu moo tax léeg-léeg xale bi du mun a rafetal ñaari ñëpp foofu nag bu ñu gisee koo xam ne dafa ñuy dimbal ci côté boobu vraiment performance bu a am solo kon ñu koy sant bu baax di ko gërëm ndaxte xadis bi nu mu wax rek man yaskuri naasa la yaskuri llah koo xam ni du gërëm nit ku la defal lu baax kooku doo gërëm yàlla subhanahu wa kon ñu gërëm euh, El Hadji Seck di gërëm à travers mon comité d'organisation di gërëm képp koo xam ni mu ngi taxaw ci liggéey bu am am solo boobu xam naa mu tënk tuuti rek ci ngeen baal ma temps bi euh, may ko euh, bandiraɓe on jettama onon fof e kuuɓal en gardini ceerno meɗen ceerno ahmad samata en ndewni hen kala ardiɓe diine tawan ɗo yata ɓe ngannduɗa dawata kirdoto koye e kono ɓamta qouran machallah yo allah yob moƴƴere en calmini bandiraɓe arɓe ɗo fof e musidɓe ɓeɗo e organisation en calmini délégation ngaji gommi région région ngaji goɗɗi ɗi en calmini ndey daara en jooɗiɓe ɓe bandiraɓe onon fof on calminama on beltanama neɗɗo arata e cérémonie baɗɗo nafoore haa ɓuri cérémonie alqouran eh, machallah on calminama on jettama on ñaganama allah moƴƴere on eh, on mbiyama marhaban wa ahlan wa sahlan bikum eyi eh, wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu macha allah si Abdul Ba ci kàddu yi am solo yi allah yal na yàlla eh, fay law yu kàddu yi am na solo lool ci ñaar yu mboole tey ñaar yooyu la alxuraan waaye bind tey ñaare mooy ne ni xaw a doy waar nit ñi bàyyi wuñ ko nit ñi nangootuñoo bind léegi ci portable yi dañuy bind di denc alxuraan karim yi ci portable yi te pourtant gi koy defar day ay logiciel rek la monté ko du ab jullit waaw bu ñu demee ba mënatuñoo bind ñu yàq logiciel boobu moom léegi nu ñuy def moo tax kon tàggatu ci bind mbokk yi ak jàng ay ñaari lëkk loo yoo waruñoo tàqali ko kon liggéey bi yàlla na gën a jeexital ba mbokk jullit itam di ko bàyyi xel saa su ne te di ko saxal si daal yi kon dañu dem si bokk mu tedd moo xam ne eh, xam-xamam yaatu na Sénégal ci ay majaalaat yu bare bari mu di ci dugg di ko xereñ suñu borom tabaaraka wa taala may ko si muy Seyid Maxtaar Kebe moom la dalal mu bokk si commission scientifique yaatal mbind ñu di ko adressé Seydi Maxtaar Kele mu Serigne Saliou Mbacké ak moo ko jàngal yar ko borom bi tabaaraka wa taala itam mu nekk ci maydaan bi di ci yëngutu waaye am ci ak xereñ lool ñu jagleel ko nag ci yaatam bind alxuraanul karim lépp loo xam dafa jëm ci wàllu boole te bu duggee ba ci biir di ngeen xam lan mooy boolee sax ndax xam naa ne sax yéen ñu koy gën a xam ndax fii la cosaanoo wala dëkk yu nekk kon Seydi Maxtaar Kébé dañ lay bàyyi nga def sa benn muqaddima waxtaan ak mbokk yi bismillah tafadal maskuura ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun